liggéeyee ci ci ci euh, important am na solo donc euh, il fale que ñu wax ci loolu parce que comme démb la ñu jot euh, rapport boobu aussi dafay baax ñu wax si alors ma Ayouba mhm. toujours ci actualité bi tey gis nañu bu yàggul dara Barth li mi dafa wax ne dafa war a am audience ak président de la République donc ku ci nekk ak ni ko interprété évidemment tey dans les cas ñoom ñaar dañu war a liggéey mais tey dafa mel ni posture Barth dafa nar a problème mu liggéey ak état selon vous lan nga jàpp ni tey fa la waroon jaata jaaru fa. bon euh, je pense que euh, dafa am ñaari fànn dafa am fànn politique bi. Mhm. am fànn administration euh, c'est le maire de Dakar. donc il est appelé à travailler avec le président euh, de la de la de république mhm. loolu en dehors du champ politique ñoom ñaar dañoo war a def dépassement pour man euh, toog waxtaan te loolu pour man euh, warul warul warul mën a ñàkk maintenant nag sur le plan politique ñëpp xam nañ ni cassure am na bu yàgg li fi xew euh, duñ ko duñ ko duñ ko nettaliwaat euh, entre les deux camps taxawu Sénégal ak euh, ki nga xamante ni mooy Pastef ak événement yu mujj yi mooy bi nga xamante ni dem nañ di organiser waa aar sunu élection ba mhm. waa taxawu Sénégal si boppam sax yenn militants ñoo doon accusé Bart moom moom moo engagé woon ay booy pour ñu ñëw yàq meeting waa aar sunu boobu nga xamante ni après waa dafa mujjee doon benn benn rixe entre militants de Pastef et militant de de taxawu taxawu Sénégal donc yooyu yëpp bu fi xewee tey jii euh, dina jafe trop tey ñoom ñu nekk dans dans une posture euh, boo xamante ni dañuy toog di waxtaan mais comme ni ma ko waxee léegi Bart c'est le maire de Dakar Bassirou Diomaye Faye c'est le président de la République Ousmane Sonko c'est le premier ministre donc ñoom seen toog mënul ñàkk euh, te je pense que lii yoon mooy ñu def dépassement un peu politique bu quand il s'agit de gérer les affaires de la cité ñu toog waxtaanee comme maintenant nag les affaires politiques moom après ñoom ñaar ku ñoom ñëpp ku nekk mën na gérer de son côté ku nekk. nga xam baax te depuis élection yi ba tey kenn dégg ko mi ngi doog a génn ci silence am. oui ñu ngi doon wax ne est-ce que sax jotoon nañ ko jox invitation ñii di côté di ko lamlaamee mais malgré tout même waa au sein de l'APR da nga doon gis ne ñoom génn nañu ñi war a wax wax nañu. Mm-hmm. mais moom mënul déclarer opposant ba nekk opposant ba pare reste ci silence am boobu tu sais il a le droit de garder le silence aussi hein parce que dañ jógee ci élection aussi boo jógee ci élection nga def score yi nga def <laughs> avec taxawu Sénégal <laughs> nga def score yi nga def alors que yaa doon borom Dakar xam damay wax nu mu demee xam nga moo doon borom Dakar <laughs> xam nga baat mooy borom Dakar wax na waa il a crié sur tous les toits qu'il est qu'il est voilà de Dakar tout léegi élection yi bu mu ñëwee demee ni mu demee. Mhm. tey jii. laaj na nga tëju def évaluation xam lan moo lan lan nga def loo xamante ni vraiment moo la porter préjudice ah ba mhm. nga ba nga am résultat yi nga am ci élection yi donc peut-être loolu moo expliquer silence bi mais silence bi en politique mënul wéy euh, tôt ou tard di nga génn ci sa mutisme te di nga wax ak nit ñi di nga wax ak sénégalais yi wax leen ban posture ngay jël façon discours yi mu daan porter lu xew mu bind ci wax opinion li li liberté boobu. waaw mais xam nga loolu yëpp politique la te les sénégalais on ont sa problème vite fait le 24 mars ils l'ont réglé vite fait. léegi wax ji amatul njëriñ. bi wax nga wax nga sénégalais am référendum mooy am taxaw nga ci yëpp wax sénégalais yi noppi. nga nga nga jokkar bi ñenn ñi wax wax wax ah ñu fi doon woote gàts gàtsa nañu afi euh, nangam nangam sénégalais ñu ngi noppi di xaar léegi nag ce problème laale les sénégalais ont eu l'opportunité mhm. euh, de le régler le 24 mars et ils vite fait. yaay borom Dakaru duma borom Dakaru yaay borom Dakaru doo borom Dakaru sénégalais ni woon la kan mooy borom Dakaru léegi comme sénégalais yi nañ. léegi nag euh, sa posture moom après euh, je pense que le silence Euh, dans les dans le premier mois quand même qui a suivi l'élection c'est tout à fait normal, normal. Mmh. parce que fallait nga def évaluation quand même même du batt rek moo silencieux Khalifa Sall aussi est silencieux beaucoup d'autres beaucoup d'autres beaucoup d'autres leaders politiques sont silencieux tout simplement parce que boo gisee élection bi nu mu demee résultat yi nu mu demee c'est un référendum mm-hmm. référendum la woon ñaari nit rek nga gisoon ci kaw Bassirou Diomaye fay Amadou Ba donc ñoom la ñi ci des ñëpp dafa mel ni compté wuñu woon sax aux yeux euh, des électeurs looloo tax nag ñoom ñu war a defaat un recul xool ban posture la ñuy am parce que fi mu toll nii yombul parce que peuple dafa choisir et le peuple a montré la voie cest à peuple bi moom lii la bëgg ñu doxal ko léegi nag bu fekkee yow euh, danga nga dem élection nga am zéro virgule wala un virgule bëgg a ñëwaat euh, wut légitimité boo xamante ni da may nga wax dafay jafe trop parce que boo waxee ñu la noppil yow un virgule nga am wala zéro virgule nga am xam nga amatoo légitimité. moom te politique waaw xam naa mais politique politique nga soxla légitimité populaire. Uh-huh. légitimité populaire moo lay may tey jii gis nga Ousmane Sonko bi mu génnee ci élection 2019 xam nga lan moo ko mayoon mu génn di wax. Uh-huh. parce qu'il y avait 15 pour cent. il y avait 700 personnes qui avaient voté pour lui et c'était sa première élection donc la légitimité de génn revendiquer ni moom dafa bëgg a jël réew mi mais Mm-hmm. amee 0,9 pour cent mënatoo am légitimité populaire ñëw di mm-hmm. wax di woo sénégalais yi parce que sénégalais choisir nañ ba léegi li fi des nag mooy nga xaar ñiy doxal un an deux ans nga xool peut-être lan mooy faay yi ak mhm. lan la population yi gën a wax ni moom moo des nga bëgg a xëcc foofu pour wutaat benn légitimité alors am nga benn question fii ci internet yi parce que ñoom aussi si lañ bokk ma leen di nuyu bu baax baax di leen wax ngeen partagé <laughs> am ni nee na ko sax xorom nga loolu moo la ko yóbbante <laughs> alors kii nee na euh, dafa posé question boo xam ne peut-être fa laa doon ñëw euh, mu làqati sama lajj nee na nga def euh, juste sa nga wax tout justement acte gouvernement bi di posé nag ban lecture nga ci am est-ce que ñu ngi sur la bonne voie est-ce que loolu la ñu soxla actuellement malgré que ni qu'il y a la pression aussi mm -hmm. ça il dañ jël réew moo xamante ni réew bu compliqué la situation bu compliqué la leen Macky Sall bàyyeel fii ci ci réew mi on a seize mille milliards de dettes ouais. Euh, on a vraiment euh, un pays en lambeaux sur le plan de l'état de droit surtout et de la mhm. justice mhm. Euh, dañ ko war a redresser état bi Euh, pour man loolu mooy chantier bi gën a mag ci ñi nga xamante ni ñoo fi toog on les attend pas sur euh, sur le plan on les attend moins sur le plan économique parce que sur le plan économique euh, dafa am ay crise exogènes yoo xamante ni ñoo ñoo ñoo lëmbee àdduna bi yëpp ñëpp dañoo nekk ci crise économique donc tout est tout le monde est tout le monde est d'accord des efforts doivent être faits dans ce sens-là mais pour man ef kii bi gën a mag défi bi gën a mag mooy ñu redresser li nga xamante ni mooy état bi ba jëlaat place am bi mu amoon euh, Sénégal maanaam mu gën a jege askan bi. Mhm. Euh, parce que état demoon na ba nekk benn distance bu graaw ak askan bi moo xamante ni li ñu sekkoon en tout cas régime Macky Sall bi nga xamante ni moom lañ moom moo ñu jiitoon lépp li ñu li mu sekkoon ak euh, sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci boor bee mooy répression jël ay fogon gendarmerie police teg ci mbedd yëpp. ku bëgg a wax ñu dal sa kaw boo génnee di manifester ñu dal sa kaw boo génnee ci télé yi wala ci réseaux sociaux yi wax ñu jàpp la tëj donc gis nga relation boobu état amoon ak citoyens yi pour man relation boobu euh, la fi nekk war a redressé waat ba am ba citoyens yi amaat confiance euh, ci état bi te man je pense que ci loolu lañ nekk boo gisee choix yi ñuy def ci par exemple ci ministère de la justice euh, ñu jël ko dénk ko benn magistrat boo xam ne bokkul benn parti politique ministère de l'intérieur ñu dénk ko benn benn benn général. Mhm. forces armées ñu jël ko dénk ko benn général. c'est un peu pour vraiment. Euh, ñu changer euh, cette cette relation conflictuelle bi nga xamante ni état bi amoon na ko ak ñii nga xamante ni ñooy ñooy les citoyens état dafa war a jege citoyen bi gën a faible citoyen bi gën a faible buy dox ci mbedd mi dafa war a sentir état mi ngi koy protéger citoyen bi nga xamante ni dafay dévier dafay sentir ne état bi daf état mi ngi ci wetam da koy dissuader état dafa war a am une position dissuasive vis-à-vis de citoyen là état boobu lañu soxla tey ci c'est-à-dire quand la police sort c'est pour arrêter de des malfaiteurs mm-hmm. et des brigands des agresseurs mm-hmm. mais pas pour mater des manifestants mm-hmm. quand euh, nu mu ti euh, xaalis état bi buy génn dafa war a profiter à que sénégalais bi nga xamante ni dafa nekk au fin fond euh, du pays soxla jiw bu baax pour yóbbu ko ci ci toolam pour béy ko mu soxla ndox Euh, bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu irrigué mhm. xam nga euh, soxla euh, nu mu tuddati ay ay ay ay ay lekk yu mu jox ay ay ay ay jur jur gi mhm. ba pare tamit soxla géej gi bu demee di napp mu bañ di jànkonteeg ay ñi nga xamante ni ñooy bateau de pêche navire de pêche étranger yi ñu koy jaay ñu koy mhm. jaay doole donc état citoyen état boobu la soxla état bi koy protéger état bi koy dooleel moom mi nga xamante ni moo nekk ci biir réewam ak euh, état bi nga xamante ni vraiment saa yu saa yu rongoñam euh, tuuroo état bi dina ñëw fompal ko ko. donc mhm. euh, je pense que relation boobu la ñu war a bâtir je pense que ci yoon boobu la ñu nekk su ma jàngatee bu baax nomination yi nga xamante ni def nañ ko ñi ngi ci yoon boobu maintenant nag kenn du juger gum état ci nomination yi mu def da ngay xaar ba ñu commencer liggéey bi doxal di d'ici nu mu tuddati un an deux ans ñu xool ndax euh, act yi ñu posé ak nit ñi ñu teg ci yenn mhm. place yi ndax euh, résultat yi euh, mu ngi commencé feeñ ndànk-ndànk ndax état bi mi ngi redressé wu ndànk-ndànk parce que état bi bés bu demee ba redressé wu mooy commencé nga lutte contre la corruption bi euh, reddition des comptes bi doxal nga ko justice bi mi ngi dox yoon te bu justice bee malgré reddition des comptes bi gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon mhm. tey am na ci ñu ci génn ci waa APR di wax ne gouvernement bi dafa <laughs> concentré wu ci liggéey bi te bàyyi toppaate beeg lën bët bi ndaxte sénégalais loolu lañ gën a soxla état bi lépp état lépp la du gouvernement bi day bàyyi liggéey bi di concentré wu ci reddition dafa am bànqaas ci état yoo xamante ne ñooy toppatoo reddition des comptes am bànqaas yoo xam ne ñooy toppatoo économie am bànqaas yoo xam ne ñooy toppatoo éducation agriculture la du fekk du ñu def comme en 2013 nga xamante ni Macky Sall dafa bàyyi lépp di topp Karim Wade donc euh, erreur boobu moom je pense que du leen dal moo tax euh, moo tax ma wax léegi ni mhm. euh, yenn nomination yi boo ko gisee après dina dalal sa xel parce que boo jëlee nit nommé ko ci ñëpp xam nañ caractère bi Ousmane Diagne am. du mhm. benn nit mooy teg pression ci kawam ba mu def. Euh, lu mu war donc kooku liggéeyam li mu war a def dina ko def sans sans sans aucune forme de pression léegi nag pression boobu wàññee ko da ngay dindi politique carrément ci yenn secteurs yi gis nga politique boo ko dindee ci.